di leen gërëm. ci ni ñu ko baaxoo defee at yi at mu ne. ci ñi nga xam ne yéen ko baaxoo def at mu ne ci waxtu wi ngeen daje fi ngir leeral fi ngeen toll ci liggéey ak li ngeen jëm ak li ngeen jëm. sëriñ bi nee na kon ñu ngi leen di nuyu bu baax. di leen sant. di leen sant. te di leen gërëm. ci ñi fi teew. ak ñeneen ñi nekk ci liggéey ba. di ko saytu bu baax moom Serigne Fall. leeral na ma taxawaay bi. Serigne Fall leeral na ma taxawaay bi. leeral na ma jëf ji ngeen tàmbali ci màggal. leeral na ko it jëf ji ngeen tàmbali ci màggal. ñu ngi leen sant ci seen posté bu baax. ñu ne nag ñu ngi leen di leen sant ci seen posté bu baax. ndax lépp lu xew. ndax lépp lu xew. ngeen dajale seen addiya. ngeen dajale seen addiya. muy ci koor gi. muy ci koor gi. muy ci tabaski gi. muy ci tabaski gi. muy màggal suñu Buxaari. muy màggal suñu Abdul Xaadir. muy màggal Tuubaa gi. muy màggal Tuubaa gi. muy gàmmu bi. lu ci xaw lu ne. lu ci xaw lu ne. lu mu xat-xat. lu mu xat-xat. ngeen dajale seen posté. ngeen dajale seen posté. ñu ne ci réew mi. ñu ne ci réew mi. ak ñi nekk bitim réew. kon nag sëriñ bi. nee na mi ngi leen sant bu baax. di leen gërëm. ñaanal ci barke Sëriñ Tuuba. dellu di leen ñaanal ci barke Sëriñ Tuuba. li ngeen tàbbal ci bis bii. li ngeen tàbbal ci bis bii. muy bisu Cheikh Abdou Khadir bii. yàlla na leen Cheikh Abdou Khadir nangul jëf ji. moom mi nga xam ne. mooy seen buntu ci Sëriñ Tuubaa. mooy seen buntu ci Sëriñ Tuubaa. ndax Sëriñ Tuubaa kat. ndax Sëriñ Tuubaa kat. benn néeg rek la. benn néeg rek kër yëpp. kër yëpp. ay buntu rek la. ay buntu lañ. waaye néeg bi kër Sëriñ Tuubaa waaye néeg moom mooy kër Sëriñ Tuubaa. kon nag. kon nag. yéen ñi def seen buntu ci moom. yéen ñi nga xam ne da ko buntu. jaarale na ñu leen ñu leen di gërëm. di ñaan seen jëf ji ngeen di jëf. di ñaan na seen jëf ji ngeen di jëf. yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu ngir yàgg ko jëf te mbarkeel sant nañ leen bu baax sant nañ leen bu baax ñu ngi gërëm mbokk yi suñu mbokk yi fi teew yëpp nee na ñu dem nag di gërëm suñu mbokk yi teew fii bàyyiwuma ci kenn bàyyiwuma ci kenn ndax dégg nga ci jëm bu bëri gën ñi ngi ànd ak leen bis bi wane seen yéene wane seen yéene wane seen jëf wane seen pastéef nee na kon loolu lépp ñu ngi koy jël teg ko ci loxo suñu Cheikh Bara Abdul Ahad nii nga xam ne nii nga ko leerale léegi rek nii nga xam ne nii la ko leerale léegi rek sama digg moom yàgg na lool digganteem ak moom yàgg na lool du léegi ba yàlla def suñu borom boole ñu ba yàlla def suñu borom boole ñu ci kanamu Cheikh Sidi ci kanamu Cheikh Sidi Muxtaar waaye jiitu na ko rek waaye nag diggante bi jiitu na ko ma dégg sëñ bi seere ci moom ma dégg sëñ bi seere ci moom màggal Tuubaa gi ma jëkk a organisé màggal Tuubaa gi ma jëkk a organisé ci xilaafa Cheikh Sidi Muxtaar mu wax ko ne ko. Cheikh Bara de. bu ma sañoon ñu jàppale ko. taxawu ko. ndax moom. bàyyiwu ma fi. wuti leen. damaa doy loo rek. ceerum am jox ma. te soxlu sama dara. loolu nag nee sëñ bi ne dund na ko moom. lu yàgg. te lépp rafet. muy nit ku bàtteeku. te dëggu. ci jàpp ko ngir sëñ Tuuba. du am ñaar fukki fan. du am ñaar fukki fan. wala weer. wala weer. te jël wuti addiya. te day jël wuti addiya. andil ma ko. te loolu yàgg na ko def. te bu ma tegee nuyoo bi ci loxoom. bu ma tegee nuyoo bi ci loxoom. mu jàllale ko ñi ñu fi teew ñëpp. nee na su ma ko tuddee rek tudd naa ñëpp. maa ngi yi ñu bokk ñu jeex Serigne Touba yi ñëpp daal gërëm naa leen di tàmbalee teewul Serigne Touba itam ñëpp itam sant naa leen gërëm gërëm leen bu baax di gërëm nag ñi nga xam ne ñoo jiite daayira bii bu dee Serigne Fall mii seen jëwee Serigne Malick Diop mi leen jiite tudd Serigne Malick Diop mi leen jiite nee na Serigne Malick seen diggante dafa yàgg sëriñam. ndax sëriñ Abdou Khadre nekkul sëriñam. 90 bi fi bàyyi ko. 90 bi fi bàyyi ko. lay lay yeesu ci man. lay yeesu ci man. loolu yàgg na ko du tey. Omar Fall itam. Omar Fall itam. moom itam ci sëriñ Abdou Khadre la jébbu. moom itam sëriñ Abdou Khadre la jébbu woon. waaye moom itam 90 la jébbu ci man. kon loolu du tey. Xaadim Diagne. Xaadim Diagne. ak mboolem waa daayira bi yëpp. ak mboolem mi nga xam ne waa daayira bi yëpp. Fatim suñu Mbàkke Lo. soxna moom Fatim Mbàkke. moom suñu Mbàkke Lo. moom suñu Mbàkke Lo. ñu seqal ñëpp daal. ak ñi nga xam ne daal ñoo ngi seqal daayira bi yëpp. ndax limoon nga ñi ci région yi ñëpp. ak nee na limoon nga ñi ci région yi ñëpp. ak ñi nekk bitim réew. kon bu ñu xasee bitim kenn. waaye daal ngeen xam ne sant naa leen bu baax. gërëm naa leen bu baax. maa ngi ñaan seen buntam nangu. seen ñoom tasaare bi nga xam ne mooy seen buntu seen tuwaay te nangu ko. te lu ci waay jëf rek. te mu gën laa yomb mu gën laa yomb. bu ci waay tàbbal. ñu ngi ñaan itam dërëm bu ci waay tàbbal. yàlla na ko suñu tubaab nangu. yàlla na ko suñu tubaab nangu. barkeelal la ko. barkeelal la la ko li sëriñ bi waxoon ci njëriñu addiya. li sëriñ bi waxoon ci njëriñu addiya. yàlla na leen tabbi. yàlla na leen tabbi. ndax mu def dana fekk it mu bëri nekk mu bëri nekk. mu bëri mu bëri ko. mu fekk lu ba fu ba fu lu bëri nekk. mu fekk lu fu bëri nekk. mu barkeel. waaw na leen barkeel seen mbir. yal na leen ko suñu borom barkeel. yal na ko suñu borom barkeel. aaju na ko. bu dee jàngoro. bu dee jàngoro. yal na ko borom tàggale yow. bu dee yittee àdduna. bu dee yittee àdduna. yal na ko suñu borom faj.